rek lay wax ku bëggula dégg dëgg li ngeen bëgg ma wax ko du leen ko wax joxaat na la quoi lii lal ño la posé question bi lii lal non lii bi eh, papa waaw papa xam nga yaa ngi koy wax sànq hmm. eh, que ni eh, yaa ngi doon naqarlu sànq kàddu yi nga xam ni Ousmane Sonko président Ousmane Sonko yëkkati na ko fële ca Sikicoor hmm. ndax jàpp nga ne dénoncé bi rek dina ci rek régler dara dénoncé ba bi ñu dénoncé kàddu yi mu yëkkati mais léegi réew mi yëpp réew mi yëpp réew mi yëpp xam nañu. Mhm. xam nga ñoom dañoo tuddee woon seen bopp yeewi askan wi. Mhm. ñoom yeewi wuñu askan wi. ñu ngi commencé yeewi de. xam nga yeewi wuñu dañoo trompé askan bi yeewi askan wi trompé nga ko tuddee askan wi du benn. fan nga tey fan nga tey da leen a trompé. da leen a trompé fan la preuve. depuis six mois fal nañ leen depuis ñett ñu ci jot a faloo ku si néew depuis six mois lu mu def. tey jaax jaxasoo nañu sax xamuñu sax lu ñuy def xamuñu sax fu ñuy teg seen tànk. mais depuis parce que xam nga. depuis depuis boobu ba léegi kat réalisation bu yaatu xajagu fi. kon kay bu ñu fa bu ñu demandé dara léegi mu jeex bi bis yi dafa gaaw bis yi dafa gaaw yow kay sooy dem di xëccoo a fekk nga préparé wu ba mu wóor leen ni suñu la joxee nga mën a commencé mais ñoom ñëpp dañoo jaaxle fi ñu toll xamuñu sax leen lañ jox lan la Sénégalais dañuy tëb di tudd ay tur yoo xam ni. xamuñu ko ay démocratie ay troisième mandat ay lu ñu tudd ko ci xamuñu sax luy signification loolu Sénégal pays démocrate le pays de liberté la liberté moo tax tey yéen ñëpp ku ci ne ñemee gàddu sa ordinateur ak sa caméra di wax lu la neex ci dara du la ci fekk. liberté yi ba fuwe woon ko jamono ji. kenn ba fuwe ku génn ñu jàpp la. ku jóge sa kër dem ca maire ba ñu jàpp la. c'est pas vrai kuy seeti sa xarit ñu jàpp la. jàpp la ku luusul duñ la ku ñu jàpp rek luus ñun fi jàpp di leen nag borom phobie yi ñu fi jàppoon ak phobie yi xam nga soo amee fit mois bàyyi ko liberté provisoire te Cheikh Omar Diagne mi ngi ci kaso bi ndax dénoncé lekk lu ñuy wax LGBT wàllum góor jigéen euh, euh, bu ma amee possibilité bi dinaa ko def. am nañ amuñu ko de. amuñu ko de sooy dem ñu loolu ñibbi sa kër. Ah, donc ku dem ku dem journaliste bu dem di laaj procureur. soo demee sos soo demee sos ñu doo ñibbi. fii ko fi sos. ak yéen. ba ba tey li ma wax li ma wax lépp ay fee li ma wax lépp ay fee <laughs> ay sos kat ngeen rek. alors <laughs> ñu continuer comme ni nga ko waxee euh, ba tey ñu ngi ànd ak euh, suñu papa papa Gaston Mbengue dafa am beneen candidat boo xam ni gars yi am nañ ci moom espoir mu di Pape Djibril Fall mm-hmm. journaliste. moo parce que journaliste askan wi am na ci ñoom ay. loolu loolu moo ko may mu mu valider parrainage am. foo xam ne am na ñoo xam ne ay coalition yu yàgg lañ. ba valider wuñ seen seen seen seen seen seen parrainage. Pape Diouf sama mbokk la sax man Ndande laa dëkk man la man Ndande laa sama yaay Fall la sant sama mbokk la. Mhm. nit ku baax la xale la il faut l'encourager mais nag taxaw da ngeen di yéen yéenay jënd loo nit fas yaa biir te du ngeen ko ngeen di jaay gumba ba mu dem di jënd billet cinéma. bay leen yooyu fii kun fi jaay. Pape Djibril Fall. mi taxaw gagné parrainage am. day door. valide candidature am day door. bu leen ko catu valide na parrainage am alhamdulilahi rabbil alamin mais eggagul fenn demagul fen jaaxalagul kenn tëjagul fenn yàlla na ko yàlla leen nag parce que il a un avenir tolloogul ci am mbay ñàkk bu mu yàkkamti bu mu topp genre yi nga xam ne da ngeen di jay nit ba mu dem di jënd billet cinéma ak gumba ba mu dem di jënd billet cinéma da ngeen di jënd loo nit fas yaa bi te du ngeen koo guble yow wóor na ma ni yaa gën a yaa gën a bañ sax Pape Djibril Fall da ngay wax nii rek. mais bëggoo ko ma Pape Djibril Fall. waaw bëggoo ko. fan nga mën a daj jàkkaarloo ma ni bëgg ma Pape Djibril yow yow loo sàggane yow li mu def li tax yow defoo ko. dafay ambition rek te man amaguma ambition boobu. non non non non am ambition. ba ngeen déggee nii Ahmed Aïdara nekk na maire. waaja kii Baan Baan ba tey taxu ñoo am ambition. politique. mais bu waxul nit ñi doon dégg. Ah, li li nit ñi def ci suuf. di ko di ko def ci ay faux ñu leen di jàpp di leen libéré. a jël. di jël koo xam day xeex wàllum góor jigéen jëkk doo ko ci kaso bi. bu ko dénoncé nit ñi duñ ko dégg. ci leen dëkk de. yéen koy yàq ngeen dëkk yéen perturber réew ngeen dëkk. per xanaa xanaa dañaa mos a yàqal dara. man kenn mën maa yàqal. parce ah, que man kon foo tax nañu yàq ñun. man su ñëpp meloon man kenn du yàqule du ngeen yàqal kenn parce que man dama koy defanteeg yéen man du ma nangu yàqal man lum la jaral pour nga yàqal ma rek daf may jaral ba tey mosoo gis journaliste bu la yàqal dara wala mu jëm la yàqal dara. man journaliste yëpp que songoor ak ñëw yaa mujj a ñëw. ba tey kenn mosu laa yàqal dara. kenn koo mënul jéem nañ ko sax. mais léegi fan nga tey ñun dañuy yàq ngeen dëkk damaa xam seen jikko. waaw fan nga ko teg mosuñu laa yàqal nga ne nañu yàq. mais dama leen a xam dama leen a xam kenn jàngalu leen li CESTI kenn jàngalu leen ko feneen CESTI lan fay jàngale ak la ñuy jàngale université du lii ngeen nekk wala boo nga xam du ngeen journaliste ay waxkat ngeen ak yu ñu jël jox micro te tàppee leen ay question leen dem leen waxi ko mais jàngu loolu de moom sa xalaat la rek. ah waaw waaw ñun ñu jàng suñu jàng dikki jàkkaarloo yow. nga kon bu ñu nekk bu ñu nekkoon ñoo xam ni. bu ñu nekkoon xam ni. du ñu ay journaliste doo ñu recevoir sa kër. ñu tànn la micro ngay wax. bari na léegi mille sites un million de sites a ngi ci réew mi léegi kër yëpp am site kër yëpp bu ci am nga site. ba tey bokk rek ñu jaar école. yéen ak ñoom a yem saa yi buñ leen posé buñ dama seetlu benn affaire yéen waa benn bokk yaa buñ leen posé question boo xam ne arrangé rek da ngeen di commencé xas di xaste non man du xas te parce que bokkuma encore une fois bokkuma benn bokk yaakaar bokkuma ci parti politique mais Macky te bëggu leen kenn ku tudd wax ko ko naqari kenn du ko président may nanga koo xam ni buñ ko waxee rek ngeen commencé taak taaki journaliste yéen da ngeen ak nangam nangam bokkuma ak ñooñu parce que man kenn ba tey yaa ngi attaque tu ñun defuñu la dara dañ laa laaj rek kenn jaral lu ma wax lu ma gëmul parce que man ba may doon li ma doon Macky Sall amul ba may doon li ma doon ñii fi nekk ñëpp kenn amul waaye tey tax na nga doon li nga doon télé yi bokk nañ ci li tax nga doon nga li nga doon

non fayuma leen le contraire ñoom ñoo ma war a fay droit télé mos ku ne dégg na ko xanaa loo sa njàng tuuti tuuti tuuti loo soriwul ci njàng it dégg nga droit télé. bu baax. waa ñoom ñoom dana war a. mais yow commercial ngay def yaa war a fay. mais man ñoom ñoo. yaa bëgg sa produit yu feeñ yaa tëgg sa ay combat yu neex. ñu ne nga bëgg ñu waneen la ko. ñoo soxla sama événement. ni nu soxlaa coupe du monde ni nu soxlaa ay coupe d'Afrique noonu la soxla soxlaa sama événement. te yooyu yëpp dem fay. alors événement làmb ci toll. waaw ah, ça va ñu ngi ñu ci maa ngi fi euh, la lutte marche bien. ban ban waajaloo benn combat bu mag. xam nga li ñuy wax tey moo tax du ngeen déglu yéen xam nga lu ngeen lu seen information lu ngeen xam lu ngeen xalaat lu yàq réew mi yow un combat yu mag yi nga xam ne réew mi yëpp moom la ñuy waxtaanee yëgoo ko. bu baax xam nañ ko. Ah, yëgoo ko kay kon bu baax mais damay laaj ndax pré prévaro ku mel ni Modou Lo nga tëgg ko. non dama ni. ku mel ni Modou Lo nga tëgg ko ak Balla déjà Balla Gaye bëri la set. bu baax xam nañ ko moo Gris Bordeaux. moo Gris Bordeaux Balla Gaye day bëri Boy Niang Balla Gaye day bëri Eumeu Sène Reug Reug day bëri Sa Thiès. Modou Lo am na yeneen ak yeneen Modou dana bëri Ama Baldé Luc Nicolaï ko tëgg nañ ko ñaanal yàlla comme la ma waxoon sànq dee ak euh, bàmmeel ñoo yem jombul kenn nan ko ñaanal yéene ko jàmm mu àgg mais yéen. du ngeen waxal nit lu baax lu ngeen xam. <laughs> yéen yéen <laughs> mais ñun yéen pourquoi ay scandale rek ngeen di scandale rek ngeen bëgg. pourquoi pourquoi chaque jour yow ngay attaqué presse bi que ni. non non une certaine presse waaw voilà. xam nga du ma attaqué ku mel ni Pam Ngagne Ndiagne parce que Pam Ngagne sa patron sa patron di sama goro toujours mu teg nit mais day wax lu sensé déglu la te loolu la leen defe naa lool la leen inculqué. mais taxaw rek yow ba mu ba fi toogee ba tey génne woo benn question buy defar réew mi waxoo ma ci réalisation maquisal yi waxoo ma ci. li ma BRT yi waxoo ci chantier yu bari yi nga xam ne daf fee nekk. waxoo Sénégalais yi ñuy rey bokk bokkul ci bokkuñ ci réew mi. non non tabaski ñuy commencé bokkul ci réew mi. ñu bëgg rey. journaliste yi di liggéey ngir informer leen yéen Sénégalais yi bokkuñ ci réew mi. Sénégalais yi te question bu ma posé ko tontu nga ci waaw tontu bu leer nga ci tontu. waaw bu leer laa ci tontu nga ne ba léegi tontu nga ne ba léegi posé posé la question. su ma ci tontuwul mu mel ni yéen a nekk ci dëgg mais li tax posé question ci Macky liggéey. posé ma ci Macky Sall bi mu recevoir ay téléphone loolu def def tole. waaw la question ci Chéri TV bi nga xam ne président rek moom lañ posé moom lañ dëkk réew mi. kon posé naa la question yu rafet n'est-ce ci Macky yooyu koy posé waxoo question yu rafet ci Macky Sall sama papa daal nangul nangul dégg dara ci Macky Sall lu baax a yu baax yi Macky yi def liggéey bi muy def nii jëmale réew mi kanam ñu war koo bàyyi mu eggale sañ xam nga tey tey su ngeen di wax di wax ba musiba am ci réew mi ñun ñoo indi musiba ci réew mi damay wax eggale ko allez-y ba musiba am ci réew mi chantier yëpp taxaw ñëpp taxaw ñu ni Macky Sall ñàkk na pouvoir amatul sax du ngeen fay salaire nit ñi taxaw comme dëkk yi fi nekk yëpp suñu wet ay coup d'état am fa ay yu ngeen xamul ña ko def tey mënatunoo génn mënatunoo tukki ña ko def suñu su démb doon tey ko def parce que def nañ ko ñu tuddee leen pouvoir mais pouvoir ba ci seen biir kër la yem ñemewunoo génn fenn ñemewunoo tukki ñemewunoo def dara ay sànc yee taxaw na ci réew yooyu yëpp dara doxatul loolu ñu nangu muy xew ci Sénégal dañuy bàyyi Macky Sall mu continuer liggéeyam. man de waxi ko far laa dégg. waaw wax damaa far mais du woon damaa far dama ko faral parce que yàllaa ko faral yàlla moo ko faral ma faral ko su ko yàlla faral loon du fi toog mi ngi liggéey nañ ko bàyyi mu kon ne liggéey keneen ku ñëw fekk fi liggéey mu kon mais doo taxaw bëgg yàqal senegal gi yëpp pour rek bëgg bës ñun de am nañu buzz avant ñuy judd. ban buzz yéen amu leen dara ban buzz. am nañ buzz ñu nekk ci un million neuf euh, trois cent mille abonnés amuñu buzz. yéen amu leen dara yéen foofu ngay ngay njaay rek fa nekk yéen xamu leen sax. jërë ngeen jëf mbokku internet yi jàkkaarloo ñun ñu amoon nag mbégte di jàkkaarloog suñu papa Gaston Mbengue moom tamit xam xaw nañoo rey quoi dañu diñu dóor rek ne journaliste dañu ko def te journaliste mosu ko tooñ. ah, ah non non non non non. daal ma ci journaliste yi daf ci am ñoo xam ni ay vrai journaliste lañu. Mm-hmm. ay journaliste yoo xam ne lañu jàng mokkal nañ ko ay journalistes de qualité ci Sénégal la ëppee. Mhm. mais léegi xaw ma ñan ñoo leen wàll xëy na borom site yéeg ay communicateurs yéeg ay waxkatu parce que ñëppay wax. non boo tëggee ñëppay fecc. boo tëggee ñëppay fecc mais am na ci am na ci ñoo xam dañu ay journalistes te ñoom bu ñu defee dara ñu ne journalistes yi lañ loolu rey Sénégal que ñun Sénégal sax boo fa demee ñi fay liggéey ñëpp ay diplôme lañ fa indaale sa bopp soo tëggee ñëppay fecc il faut ngeen arrêté pecc mi wala ngeen arrêté tëgg mi parce que comme ñëppay fecc réew ñu warul a fecc dañuy fecc lan ngay tàggatoo mbokk internet yi lay seetaan di leen gërëm nuyu leen ma El Hadj Ngagne sama goro sama xarit yàlla na leen yàlla sàmm taxawu leen. Mm. ngeen di comporté wu en éducateur d'abord. Mm. éduquer leen réew mi éduquer leen nit ñi. nit mën naa def sax lu ñaaw lu bon ñu sóor ko ñu nëbb ko nëbbal ko ko parce que ku dul juum amul. ñu nëbbal ko ko pour jéem ko man sa papa xam lu mu daan wax. Mm. ànd ak doomu jiili mbay. mu ëpp xaalis ci Sénégal mooy Diogo Kébé mérite amu ci ànd ak doomu Abdou Diouf wala rakam muy président de la République ngeen bokk Louga. Mhm. mérite amu ci xam nga fu mérite am. Mhm. ñi ngeen màggandool juddoondoog ñoom ci dëkk bi jàngandoog ñoom ñu jaar ci yoonu woo xam ni neexul sax seeni mbokk seen àddina nar a yàqu te yéen jàngandoo yéen a defandoo lépp ngeen dem ànd ak ñooñu fexe ba nu mel ni yéen. wala ñu wala ñu gën leen su boobaa ngeen di am mérite mais doo fekk nit koo xam ni dafa dévié wu jaar beneen yoon nga jéem ko nga koy jéem a enfoncé pour yow rek nga ñu gis la wala pour nga am vue comme ni ngeen koy waxee bëgg vue tax ngeen di rey nit tax ngeen di sànq nit loolu baaxul. jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu doon seetaan ñu amoon mbégte comme ni ngeen ko seet dalal invité boo xam ni. Euh, day xeex ni ma ko gisee ñu jox leen dig daje beneen yoon. damay wax dëgg bu ci yàlla àndee. dëgg nag moom soo ko waxee rek ñu ne dangay ngay xeex. jërë ngeen jëf. jërëjëf. <laughs>